yi am du université Cheikh Anta Diop rek mais université yëpp ñoo ko am waaye université Cheikh Anta Diop daf ci dafa ëpp ndax tey booy xool université yeneen yëpp fay nañ leen université Cheikh Anta Diop rek lañ fayu lu tax ndax université Cheikh Anta Diop bi ñuy voté budget 2017 bi dañ leen ne woon am na li nga xamante ni mënul ñàkk ñoom xam nañu ni salaire kenn du ko fay ba octobre nga ne bàyyi naa fay salaire danga koy fay janvier ba décembre jox pour université Cheikh Anta Diop fukki un salaire rek maton. Lolo looloo waraloon mois de novembre bi ñu un problème Si nous avons un salaire le ministère a fait. fay mois de décembre bi avons un salaire xamuñu sax kan mo ñu wara mais li ñu wóor te moy du université mo ñuy fay donc pour ñun problème bi ñu wara jëk njëkk université Cheikh Anta Diop parce que budget 2018 bi voté guñ ko mais budget 2018 nous dañu bëgg

liñ la wara rappel ba tay ji mënu ñu la wax kañ lañ koy kañ lañ koy fay donc manam yow da ngay nek université di liggéey 2015 ba légui ñi fi avancé muy ki di man di amna ci ño xamanteni ne avancé na ñaar yoon ñi avancé na ñett yoon digënté bi ndax seen xarañ lool il faut que ñu préciser ko ndax seen xarañ moom motax ñu avancé loolu gisunu ko ci seen payor te ba tay ji ñom mënu ñu wax kañ lañuy fay loolu lolu day dem nak ba xaalis bu demee ba takku ñu neñu deet liñ leen amel dafa mënu ñu leen ko fay motax ñu ne leen doyna 2018 bi duñ ko wessu bi ngeen di defar comme defaragu leen budget 2018 bi université Cheikh Anta Diop na ngeen ci bolé xaliss yoyu ngeen xamanteni ci ay avancement personnel université Cheikh Anta Diop bi da ngeen leen ko amel depuis 2015 ngeen bolé ko pour mun ko fay nit ñi parce que fay da fay da fay tax ba ay problème di judd ay problème yi nga xamanteni jaruko. benen bi moy ñi demone dab bagu daw jité jury ku xam li ci jité jury xam ni jury bak dafa metti dafa compliqué ndax da nga joggé sa kër bayi len fa fukki fan ak juro yi nga xamanteni yaay jitu ci centre ba ya fay mujjé joggé di nga liggéey lu upp fukki waxtu ak ñaar jour bu nek président de jury yoy nga xamante ay professeur d'université lañ ba tay ji xamuñu kañ lañ leen di jox sen ndàmpaay ñeneen ñi amna ci ño xamante jot nañ leen fay moy ñi nek moy secondaire te ñoñu ay membre jury lañ ya xeyti ku mëna fay membre jury xana président jury bi nga war ko mëna fay waaye déggulen leen mu wax ci mais dañuy alerter ni wax autorité yi ne nañu bàyyi di jaxase parce que loolu jaxase enseignant yi la nañu bàyyi di jaxase éducation njàngale kenn du ko caaxaanee kenn du ko politiquer loolu moo taxoon barki démb ba tey ji ñu leen di wax ñu ne suñu ay militants nañu dàkkal liggéey bi ci faculté yépp ba xanaa bokk ku liggéey ba weer dee ñu fay bo jotee sa salaire nak après nak ñuy dogo xol ñeneen question yi nañ koy régler mais fi ak salaire amul en tout cas ñun université Cheikh Anta Diop enseignant duñ jangalé lolu mom day lo xamanteni il faut que mu lèr ci bop ñep fi ak amuñu salaire suñu mois de décembre ñun en tout cas duñu jangalé ndax nak mom dañuy dawi dépenses